بو الحافظ ابن حجر رحمه الله بلا لول فندو على على الأخ الإمام الأستاذ الإمام علي بدر دو يالله ko yàlla yërëm te xaare يالله aljanna yàlla wuutu ko ci ابدأ حديث 44 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة نعم حديث حديث لقيت بن آه، صبرة dañuy وقت صبره دي وقت صبره. ñaar yëpp dañ koy wax alxaafis ibnu xajar mu ne xamuñu ci moom lu bari ab saxaabi la boo xam ni dajana ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo nettali qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taban alxaafis ibnu xajar am na ab téere boo xam ne da cee mboolem saxaaba yi nga xam ni euh, jot na xam ci ñoom ni dajana ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam téere mooy ban téere ko ku ko jàpp الإصابة في تمييز الصحابة الإصابة في تمييز الصحابة والحافظ ابن حجر لقد ابن صبرة منى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما نعم حديث بي من أخرجه الأربعة وصحه ابن خزيمة xadis بورل wër la ak tirmisi wëral na ko wal albani rahimahumullah mu ne asbixil wudu isbaaxul wudu buñ ko waxee moom mooy cër yépp nga matale ko mu tooy cër yépp nga matale mu tooy loolu mooy al isbaax isbaaxul wudu mu ne wa baalix fil istinshaq booy sarax ndiku nañ ci def mubaalaxa mubaalaxa mooy ëppal ëppal ci dugal bi ngay dugal ndox mi ci biir ci biir bakkan bi waaye nag mu ne illa an takuna saaiman bu ko def bu fekkee danga danga da woor lan moo tax naam abo mooy ndox mi mën na dugg ba ci biir day rëcc jaar ci put bi moo tax mu ne illa an takuna illa an takuna saaiman naam wa xallil bayna asaabi moom mooy diggante baaraam yi nga koy ragg nga toyal ko digënté baaraam yi loolu mooy xallil baynal aswabe ni comme sunna la boy japp nga taxliil nga jël say baram nga dugalante baaraam yi bërëb yooyu tamit mu toy lool sunna la ci lu gëna wër ci waxu borom xam-xam taxliilul asabi dugal baaraam yi ni di ko rag lool sunna la du farata ludul Imam malik mom mo gis ni loolu farata la waye lu gëna wër mom moy waxu jumhur taxliil loolu sunna la illa an takuna saiman wa baalig fi istinshaq booy sarax nag ndox mi na yéeg ci kaw bu baax lu dul ni da nga woor ko xadis bi ñu jëlee ci nii saddu zaria qaida saddu azzaria istinshaq sarax ndiku ëppal ndox mi ci biir lu dagan la waaye nag bu fekkee ne da lay yóbbee dog sa koor wala yàq sa koor boobaa dañu indi règle sadd azzaria ak règle ak regl règle darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha mooy teggi ab lor moom la ñuy jiital ci njëriñ njëriñ li moom mooy lan tiyaaba saraxndiko waaye lor bi mooy lan mun na yàq sa koor comme su boobaa lor bi la ñuy jiital moom la ñuy sóoraale mu ne axrajahul arbaa ñeent ñii ñoo ko génnee ñeent ñi ñan la ashaabu sunan man hum أبو داود ابن ماجه ترمذي النسائي ñu ñooy al arbaa wa saxahu ibnu xuzayma ibnu xuzayma صحيح na ko fan نعم saxiix ibnu xuzayma naam ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمد وعن عثمان رضي الله عنه في رواية أبو داود إذا توضأت فمضمد boo jàppee fa madmit boo jàppee na nga gallax comme gallax ndiku yentu saa su da koo digle mu ne fekkete nii danga jàpp ci riwaaya abi daawud mu ne nanga nga gallax nga jëlee ci ni gallax ndiku sunna la ci njàpp borom xam-xam yi wuute ndax farata la wala wala sunna la am ñu ne farata la imaam malik loolu la wax ibnu mubaarak ak isxaq ibnu raahawayhi ñu ne lu war la waaye jumhurul ulama nee nañu sunna la te loolu mooy lu gën a wër te yàlla dafa ne faxsilu wujuha wujuhakum comme wajh moom mooy farata tudd fa galaxndiku ni farata la ñoom na xëy na dañ ne galaxndiku gémmiñ ci kanam la bokk moo tax ñu ne lépp lu aju ci kanam lu war la waaye lu gën a wër moom mooy yooyu sunna la digle bi du digle bu war waaye digle bu lan la istihbaab digle bu istihbaab ndax digle ci sunna ñaar la amru lil wujub ak amru lil istihbaab digle dina ñëw nekk lu war waaye digle dina ñëw nekk lu ñu lu ñu lu ñu sopp ibnul qayyim mu ne amul benn yoon foo xam ni jëlee nañ ci yonent bi salaa sallam ne jàpp na sans mu gàllaxndiku naam وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم bi xadisu Ousmane mooy ki nga xam ne moom la dellu ci melokaanu njàpp yonente bi sallallahu alayhi mooy ki nga xam ne moo ko faram fàcce moo tax xadis bu njëkk bu ñu njëkk a jàng ci njàpp ولا نيار الحديث ما حديثه حديث عثمان بن عفان من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء يعني صلى الله عليه وسلم دران دوغل بارامي شي سكيم بي بوفيكي دفعي جاب دران تويل دران تويل سكيم بي نجل اتش حديث بيني بكر نتش ملوكانو يعني صلى الله عليه وسلم مموي سكيم تيركو الورلا لحديث xuuful lixa wa qassu xaaliful yahuda wan nasaara ñu bari ci boroom xam-xam yi ne yar sikkim farata la wat ko walla wàññi ko dafa xaraam donte jëlee nañ ci ñenn ci boroom xam-xam yi nee nañ wàññi ko sunna la mu ngi nekk sunna bu fekkente ni ñenn boroom xam nee nañ alqabd da nga ko ngëb benn ngëb la ci des dagan na nga wat ko ñeneen ci boroom xam nee nañu loolu sax dafa wuuteeg li nga xam ne moom mooy jëfu yonente bi ak saxaaba yi ndax seen sikkim ëppoon na fa ñu daal di ko ngëpp waaye amul kenn ci ñoom koo xam ni wàññi na ko ñenn ñu ne bu demoon tànk demul bay di réeku mu lay lor comme du dagan nga nga wat ko wallahu alam allahuma xam lan moo gën a wër ci loolu comme nga gis ne ci xadis bi bokk na ci sunnay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy day dugal baaraam bi ci biir sikkim bi ndax kanam lu ci suuf ci la bokk lii nii ci la bokk te lii luñ war a ragg la te ku am sikkim bu ko amee bu dugalee loxo bi ci biir ndox mi day gën a mën a àgg ci ci der bi ci cër bi comme lii tamit sunna la nekkul nekkul lu war sunna la taxliilul maanaam tooyal sikkim bi dugal baaraam ci biir loolu tamit nekkul lu war loolu sunna la naam ibnul qayim mu ne yonente bi salaa sallam loolu daaw ko def bés bu nekk axyaanan la ko doon def léeg-léeg loolu mooy gën a firndeel ni loolu sunna la loolu nag ci ko am sikkim la waaye ku mel ni man loolu diglewuñ ko naam ci ko am sikkim ci moom lay nekk moom lay nekk sunna naam comme xadis bi euh, ñëw na ci beneen riwaaya ci abdullah ibn mughaffal moom it mu daal di wax loolu mu ne axrajahu tirmidi tirmidi moo ko génne ci ban téere hmm? sunan sunani tirmidi tirmidi ñaata téere la am ci xadis as sunan waa naam chamailu chamailu nabi chamailu muhammadi sallallahu alayhi wa sallam wa saxahu ibnu xuzayma ibnu xuzayma waral na ko ci téereem di di ah الصحيح نعم وعن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة الحديث بما حديث عبد الله بن زيد من إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد ما يثلث مد mudd buñ ko waxee mooy loxoob nit ku yem nit koo xam ne ku yem la bu ngëbee ñaari loxoom nii lam ciy def loolu mooy tolloog mudd yonent sallallahu alayhi wasallam jox nañ ko lu toll noonu fa jaala yadluku ziraayihi mu ci ragg li nga xam ne moom mooy ay ay loxoom ci njàpp comme xadis bi lu ko soxal mooy yadluku mooy ragg bi moo ko ci soxal mooy sunna la ci njàpp nga ragg cër yi nga xam ne moom ngay moom ngay tooyal moom ngay raxas comme dalk sunna la tamit loolu tamit nekkul tamit lu wër nekkul li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy moom mooy farata waaye bu cër bi tooyee rek loolu moom mooy farata bi waaye ragg ko lu gën a wër moom mooy loolu du farata lu dul azahiriya ñoo ñoo ne farata la azahiriya ñoom lu tax ñu tuddee azahiriya ñoom dañuy sukkandiku ci zawahiru nusuus la feeñ ci taxi bi ñoom dañuy sukkandiku moo tax la feeñ ci taxi bi mooy yaddulu ko da daan ragg moo tax ñu ne ñoom waajib la naam am na boroom xam bu siiw boo xam ne ci zahiriya la kan boo koy fàttaliku ibnu xasm ibnu xasm rahimahullah mu ne axrajahu ahmad ahmad moo ko génne ci bantéere المسند مسند إمام أحمد وصحه ابن خزيمة ابن خزيمة ورلكو تي بنتيري صحيح كم رغ سنة لدو فراتا لدو الإمام مالك مموني سنة الإمام مالك كو ترى الله تنجاب تي مزاهب الأربعة كو تي ترى الموموي تنجاب موموي الإمام الإمام مالك وعنه نجلي أيوة نعم فضل يا شيخ وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ الأذنين ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ أي نعم ñu dellu ci xadis bu njëkk bi yendu saasam daan na jàppee li nga xam ne mooy mudd loo xam ne lu toll nii la nit ki def ci ndox daan na si daan na si jàpp naam loolu tamit sunna la waaye nekkul nekkul waajib loolu ciy ragal moom mooy nit kii di yàq ndox nit nu mu mën a sakkanal ndox ci njàpp na ko def waaye nag amul xadd ci lislaam maanaam xadd boo xam ne dañ ne ndox mi faaw mu am quantité bii su ko weesoo waroo cee jàpp imaamu yi nee na loolu dëppoo boroom xam-xam ndox amul ab àpp buñ ko jox ci quantité ne bu ko weesoo day araam nga jàpp ci نعم من عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ لاذنه ني جيلي سي موم عبد الله بن عبد الله بن زيد من ان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ لأذنه ماء خلاف الماء الذي اخذ لراسه حديث بي حديث البيهقي mu ne Abdullah ibn Zayd nee bi sallallahu alayhi wasallam bu raxasaan boppam nopp yi da daan jël beneen ndox bu bees bu bokkut ak ndox bi nga xam ni moom la raxasee boppam ko alxaafis ibnu xajar dafa indi xadis bi di wane am na ci borom yoo xam ne dañoo gis ni ndox bu ñu masaawee bopp waratu bokk ak ndox bi nga xam ne moom lañuy ñuy masaawee nopp yi su fekkee dafa masaa bopp bi dafa jël benen ndox massa ci nobbi ndax amna yenen hadith yo xamne day wax ni ndox bi nga xam mom la massawé bopam ndox boobu dafa la massawé ay ay nopam wa rafi di hadith bi bëgg woon ni tamit lé tamit dagan na lee tamit amna borom xam-xam yu ko wax waaye nak mune wa huwa inna muslim min hada al wajh muslim nak dafa ne wa masaxa bi rasihi bi maa فضل غير فضل يديه وهو المحفوظ ñu ne bayhaqi dafa juum ci xadis bi waaye la wër mooy la muslim indi moom mooy dafa masaa boppam ci beneen ndox maanaam dafa raxas loxo yi ba fii ba mu ñëwee ci bopp bi dafa changé jël beneen ndox loolu moo gën a war waaye bayhaqi dafa juum maanaam ci chaîne bayhaqi bi raay bi dafa juum mu ne dafa jël beneen ndox mu masaa ci bopp bi bu bokkut ak ndoxu bu masaawe boppam waaye la gën a wër ci chaîne xadis bi comme ni ko Bayhaqi inde mooy saa dafa masaa bopp bi utiliser beneen ndox boo xam ne bokkut ak ndox ba mu ba mu masaawee ay loxoom raas loolu mooy lu gën a wër loolu mooy lu gën a wër maanaam ba mu ñëwee ci bopp bi dafa jël beneen ndox bu bees du tooy tooyu loxo yi la masaawee boppam waaye dafa jël beneen ndox bu bu bes waye raayu bi nga xamne mo nek ci bayxi mom dafa juum mu ne ba mu ñewé ci nopp dafa jël benen ndox bu bes bu bok tak ndox bu masawé bopam comprendre nañ naam comme lolu moy li nga xamne mom moy lu lu gëna wër moy do sallallahu alayhi wasallam buy massa bopam nekul toyaay loxo ndoxu toyaay loxo bi la bop bi waye ba mu loxo yi ba ci tank yi dafa jël benen ndox massa ci massa ci bop bi massa ci bop bi أي نعم مر الحافظ ابن حجر من رواية البيهقي شاز من البيهقي رواية به شاز له نكل دفو وتك لغا خمنا مموي مموي الور ابن القيم من اتزاد المعاد أمون فن فنيو صلو فنيو جلية يونا النبي صلى الله عليه وسلم نه بمنيو يتي بوبي مانام توي توي لخو بي تلا مسايا بوبي مانام دفرخص لخو بسي تشانچو بي daal di masaa bopp bi ndax loolu am na ñu koy wax ci boroom xam-xam yi moo tax mu ne loolu saxul ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buy masaa bopp bi day jël beneen ndox bu bees bu bokkut ak li nga xam ne moom mooy euh, tooy tooyu loxo yi naam wa an abi hurayrata qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم نعم حديث بحديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما دق يونان النبي صلى الله عليه وسلم ويوخنان inna ummati yaatuuna yowma alqiyamati gurran muhajjalina min athari alwudui faman istataa minkum an yutila gurratahu falyafal mu ne keroog yowmal qiyaam sama xeet dañuy ñëw bu ñu ñëwee dañuy leer fépp fu ñu daan jàppee day nekk leer yowmal qiyaam ndax njeexitu jàpp yi nga xam ne moom lañ daan jàpp ci àdduna mu ne fa man istataa minkum an yutiila xurratahu falyafal ku mën a yokk ci cëru njàppam yokk ci leneen na ko def ndax mu fekk ne ki nga xam ni day masaa tànk yi di ko masaa ba ci dojoor gi yowmal qiyaam leeraay bi ba ci dojoor yi lay yem ki xam da daan yokk nag dem ba ci óomi leeraay bi day ñëw ba ci ba ci óomi moo tax abu hurayra mu ne fa man istataa minkum an yutila xurratahu fal yafal ku mun a yokk cër bi yokkaat ci leneen moo xam loxo la boo ñëbas coonc yi nga dem ba ci mbagg bi na ko def ndax loolu day gën a yokk yokk leer bi dafa am ishkaal ishkaal bi mooy fa man istataa minkum an yutila xurratahu fal yafal ku mun a yokk ci ay cëram raxas ko na ko def lii bokkul ci waxu yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye waxu abu abu hurayra la benn te ab saxaabi bu waxee ab wax bu wuute ceeg yeneen saxaabi yi loolu du nekk dalil ndax xadis bi ibnu mas'ud soloo na ko ak jaabir ibnu abdillah ak abu said al ak yaakaar naa aïcha waaye ñoom ñépp kenn tuddul waxu abu hurayra bi lu ñu tudd rek mooy inna ummati yaatuuna yowma alqiyamati xurran muhajjalina min atharil wudu fa la ñu yem waaye yokk ju ci fa man istataa minkum an yutila xurratahu falyafaal comme loolu la muy wane moom mooy riwaaya bi chaz mudraj mudraj mooy lu ñu yokk ci waxu yonent bi salaa sallam fekk du waxam abu hurayra nag namm ci waxal yonente bi leneen waaye raawi bee juum ba tàqalewul diggante waxu yonente bi ak waxu ak waxu abi hurayra ndax mën naa wax ak yéen ma ne yonente def salaa sallam nee na euh, ku dugg si jàkka na nga julli ñaari ràkk ma ne naam ndax loolu soo ko deful da am bàkkaar soo ko deful da nga am bàkkaar loolu soo ko wax la waaye yonente dafa ne na julli ñaari ràkk raayu ba mu ñëwee tàqalewul diggante ñaari waxi mu jàpp ni wax bi yépp waxu Abu Hurairah, te benen moy yenen sahaba yi bolo bu takku lañ te ñom ñep dañoo wutek Abu hurairah lool moy wane ko wax ji waxu Abu hurairah waaye nag jëlee nañu ci sahabatul kiram ku ci melni Abu Hurairah ci bopam ni mom bu da raxas loxo yi da koy raxas ba ci mbagali wala ba muy waja jage pokatan bi Da Abu hurairah dafa ijtihaad mom, dafa xalaat ni comme ko yowmal qiyam leeru njàpp yi day feeñ comme xaaral man ma yokk la may raxas ci cër yi ndax su ko defee samay leer gën a bari moom noonu la ko déggee mu raxas ko ba ci danaan jàpp di raxas ba ci mbagg li wala ba ci poxtaan da ko daan def sol nañ ci Bilaal ibnu Rabaax ni moom it da daan jàpp buy raxas tànk yi da ko daan raxas ba ci óom yi da ko daan raxas ba ci ba ci óom yi comme loolu jëfu saxaaba yi la boo xam ne dafa wuuteeg jëfu yonente bi sallallahu alayhi wasallam te saxaaba yi dañ doon ijtihaad dañ doon góorgóorlu ci masala te ñëpp xam nañu borom xam bu góorloo la mu wax nekk lu dëppoog dëgg am na ñaari tiyaaba bu wuteeg dëgg am na am na benn tiyaaba at Tirmidi mu ne borom xam-xam foofu daal di wuute ci guddal bi maanaam kuy jàpp yokk ci limite bu mu war a raxas comme mu ñëwee ba si loxo yi ba si conc bi mu yokk dem ba ci mbagg li wala bu waree raxas tànk li mu dem ba ci oom yi ñu ci bëri na loolu du dagan ku ci mel ibnu xajar ibnu taymiya ibnu qayyim ak ñeneen ci boroom xam-xam yi ñeneen ñu ne loolu mënees naa nekk ndax nee nañ saxaaba yi saxaaba yi def nañ ko ñi nga xam nee nañ du dagan bu fekkee loolu la wax ne cër bi mën nañ cee yokku raxas leneen yokku ko maanaam comme xanaa bu raxas kanam soo ko bëggee yokk xanaa da ngay raxasaale bopp bi est ce que loolu dina wër waa da ngay indi njaxas ndax boo nee cër bu nekk dagan na nga yokk ko mathalan ci waxu abu hurayra bi comme sooy raxas kanam mën nga yokk ba ci bopp bi ba ci nopp bi su boobaa da ngay indi bida ci biir ci biir njàppale ñeneen ñu ne dagar na waaye bi charte ci ñaari cër dong la ñaari cër dong mooy ban loxo yi ak tànk yi yokk ci loxo yi ak tànk yi waaye lu gën wër moom mooy eh, loolu amul asl ci eh, li nga xamante ni moom mooy yonte salaasam donte albani am na ci yum ci xam ne da waaye qaayda bi mooy albaani lépp lu mu tasxiix dañ koy xoolaat te fekk nekkul ci buxaari ak muslim waaye lépp lu mu tadif fil xaal bi dafa day daif at-Tirmidi raximahullah mu ne wal amalu ala boroom xam yu ma dajeel loolu lañu wëral mooy daganul di yokk ci cër bi loo xam ni euh, yonent bi salaa sallam داول داول jàppee noonu ay naam وعن آه. عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله متفق عليه آه، حديث بي آه، يا عائشة من قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وترجله وطهوره وفي شأنه كله حديث بي dafa yonte salaa sallam ne ya aïcha yonte salaa sallam da daan yéemu ci di tàmbalee ndeyjoor ci lépp ci buy sor dàll ci buy japp ci la bok sangu set ci la bok wa fi sha'nihi kullihi ak mbiram yépp daan tambale ndey jor hadis bi ba relation la am ci japp ak japp naam naam fay afon fay fay mo njëkk yëkkati naam naam fay bo japp da ngay tambalé ndeyjoor lan mooy shaahid bi lan mooy dalil bi lan mooy shaahid bi yujibuhu tayammunu fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi tuhurihi tuhur laab njàpp ci laabu la bokk njàpp ci laabu la bokk ko xadis bi ya Aïcha alxaafis boog da indi pour wane yonent sallallahu alayhi wa bu daan jàpp daan tàmbalee ndeyjoor maanaam loxo ndeyjoor lay njëkk raxas doog a raxas li nga xamante ni moom mooy càmmoñ cër bu nekk su koy raxas ndeyjoor lay tàmbalee masalan buy raxas loxo yi ba ci tënk yi loxo ndeyjoor lay tàmbalee euh, buy raxas tànk tànk ndeyjoor lay tàmbalee léegi bu defee safaan nag bu defee safaan comme buy raxas loxo yi mu tàmbalee loxo càmmoñ doo ci teg ndeyjoor buy raxas tànk mu raxas tànk càmmoñ toog ci teg ndeyjoor ndax jàpp boobu dagan na bu ko teyee dafa toppul na ku wax leneen aay bi détaillé gauche droite aay bi dafa wax rek est que am na xadis bu bu détaillé non xadis Ousmane détaillé naam naam Moustapha dellu ci gos bi naam lu gën a war mooy même bu ko teyee njàppam yàqul ndax loolu bokkul ci luy yàq njàpp waaye nag wuute nag sunna yonente bi sallallahu alayhi wa ndax njëkk a raxas loxo càmmoñ teg ci ndeyjoor loolu yàqul njàpp loolu yàqul njàpp naam waaye bu ko defee dafa wuute ak li nga xamante ni moom mooy sunna yonente bi sallallahu alayhi wa naam waa dañ koy sil loolu mooy lool mooy lu gën a wóor dañ koy sil waaye yàqul njàpp naam naam ñu yem ah, ñu ñu yem foofu def muraajaa ci ginnaaw tuuti اي نعم نعم تفضل تفضل جانجل بوب جانجل الحديث بوب وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تودأتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة حديث أبي هريرة فقنا لا يرى من إذا تودأتم فابدأوا ب mayaminikum boo leen di jàpp na ngeen tàmbalee sen seen ndeyjoor naam na ngeen comme bi leeral na xadis bu njëkk bi hadis bi nak borom xam wuute nañ ci wëram boo leen ndeyjoor jor amna ñu ko tadaif am na ñu ko ñu ne ci waxu abi hurayra la waye nekul waxu yonente bi salallahu alayhi wa sallam wa hadith bu ñeek bi da koy sédé hadith bu ñeek bi da koy da koy dëgëral yu yujibuhu at tayammun da yemon tambale ndey jor ci lepp ci buy peñew ci buy sol dal ak ci buy lablu comme même hadith bi bu dayifee hadith bobu da koy da koy da koy deugural mun akhrajahu al arbaa wa saxaahu ibnu ibnu xuzayma naam ñu ñëw ci daf benn muraaja bu ndaw ci baab izaalatun najaasa wa bayaaniha mooy page 46 mooy baab bu jiitu baab boobu mën a rajot naam baab bu jiitu baab boobu الله باب إزالة النجاسة وبيانها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتقز خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح الحديث بحديث أنس لا من سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا سانغر بو خامني دنجكو دنج بو مو نب ba nekk vinaigre wala loo xam dañ ko def sàngara denc ko ba mu nekk xall xall mooy dee dem ba nekk vinaigre kaala la mun a déedéet bu ko def ko xadis bi dafa wane ni comme buntu bu isalatu najasati wa bayaaniha mooy leeral sobe ak dindi ko comme ci xadis bii nii yenn boo xam ne sàngara lan la sàngara sobe la la mu am xilaaf nag ci boroom xam-xam yi ñenn boo xam ne sàngara sobe la ndax aaya bi innama alxamr wal maysar wal ansaab wal wal azlam rijsun min amali sheytaan rijs ñu ne rijs mooy sobe comme sàngara day nekk sobe yeneen boo xam ne sàngara du sobe ndax ba ñu araamalee sàngara su lañ ko tuur ci mbeddu madina yi te jigéen ñi dañ daan dox seeni muuraay di direeku ci ci sàngara si ñu ne comme loolu moo tax sàngara nekkul euh, nekkul sobe naam يا رب الحديث رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس متفق عليه. نار حديث ما حديث يوم خيبر. يرسل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الاهليه. yalla ak yonentaam dañ leena téré tere li nga xamanteni mom moy yap mbam mbaam sëf ndax dafa sobe la comme hadith bi jele ci ni yap mbam sobe la du dagan ñu lek ko fay aram ñu ñu lek ko ndax jëmmi mbam bi moy sobe wala yap moy sobe ah Muhammad yap naam yàpp moom mooy sobe waaye nekkul jëmmi der bi ak leneen du sobe der bi dagan na ñu defar ci dàll sol ko ginnaaw bi nga xam ne dañ koo lelli daal di koy daal di koy wowal ñaqam tamit nekkul nekkul sobe la may wane nekkul sobe jàngoon nañ ko ci xadis yeneen tamit daan ko war naa am bu nekkoon sobe du ko war te mbaam soo ko waree day ñaq te bu ñaqee ñaq bi day tooj say yére Nah, beneen hadis. Nah, ci hadis bañ ko Mus ndax mana sobe la mu ne laysa bi najis hiya min attawaafina alaykum mus du sobe ndax dafa ne bok ci bàyyi ba yi nga xam dañuy wër seeni biir comme baab dafa bokk ci bàyyi ma ñuy wër ci biir nit ñi soo demee ci dëkku àll comme du du sobe naam comme yàpp rek mooy sobe waaye ñaq beeg der yi du sobe ah an luxuumi naam mooy ay yàppam waaw yàppam la wax naam naam sax yàppam la wax waxul leneen yàppam la wax naam barakallahu fiik naam cheikh bi وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه من خطب آه، آه، حديث عمرو الخارجة من خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنن وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي من صلى الله عليه وسلم يو خطبال بسو منا تمام ميوان شي ورواي ورواي أمنا ينا فصل أمنا ينا بابل ووتا شي mu ne ay yuutam di rogalaat ci sama mbag ay yuutam di rogalaat ci sama mbag lu ñuy jëlee ci xadiis bi mooy yuutu mbaam du sobe walla fas du sobe walla gëléem walla xar walla yu mel noonu du sobe ndax xadis bi dafa wane ni yoonu saa sallam saxaabi bi yuut bi mi ngi dogalaat ci mbagg li waaye du saa diglu dig euh, digalu ko mu dem changer yére yi digalu ko mu sangu te moom it noonu la jullee ba julli jotee ko loolu day wone nii yuutu bàyyi ma yi du sobe lu dul xaj lu dul xaj ndax xaj moom lu si ñëw ci tanzif ko mu baalaxa moom mooy bu dugalee làmmiñam wala gémmiñam ci ndab nañ ko raxas juróom-ñaari yoon benn bi ànd ak suuf ci riwaaya bu njëkk bi ànd ak suuf comme loolu moo ne loolu sobe la comme comme xaj moom yuutam sobe la waaleykum salaam wa rahmatullah ci mbaam xuux yuutam ba xam sobe wala déet yenn borom xam ne sobe la ñeneen ñi du ne du ne du sobe wallahu aalam nga jëlee ci xadis bi ne soxla nañu koy xutba mu taxaw ci bërëb bu gën a kawe soxla nañu koy xutba mu taxaw ci bërëb bu gën a kawe boo xam ne ñëpp ñoo koy ñoo koy séen motax muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa khutba nek ci kaw waruwaayam ngir ñëpp mën ko seen ñëpp mën ko gis ñu ne kuy xutba moo xam khutba jumaa wala mina wala arafat wala khutba julli baaw naan mu taxaw ci bërëb bo xamni mom mo mom mo gëna kawe naam حديث عائشة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك ثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه حديث عائشة من يونتم صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية يرب دان تك مني مدال دي رخص ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل دكو دان رخص génn دم جولي من ماي غيس نيهين تالو رخص بي تي يربي mu دم جولي مانام maanaam بامو واو xadis bi loolu la bëgg a firndeel sobe loo xam ne wala boog lenn lenn loo raxas ci yére mu daal tooy aajowul ba xaar ba mu wow ngir mu ngir nga mën a julli nit mën na julli ci yére boo xam ne daa am ay tooy tooy tooy loolu yàqul li nga xam ne moom mooy moom mooy julli naam ñaareelu xadis bi topp wali muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farkan fa yusalli fihi bu dee xadis muslim mu ne doon naa ko xoos ci yére yonent bi sallallahu mu daal di siy julli comme xadis jëlee ni mani yu du sobe bu doon sobe da koy raxas waaye fii yaa Aïcha da koo xoos ba mu woowee mu dem julli ci ku gis ne lii du sobe nga jël règle luy génn ci góor ñeent la ci zakaram saw wadiyu madiyu maniyo ñett yi du waral sangu set dañ koy raxas raxas bërëb ba mu takk bi duñ ci sangu set té buñu nexé duñ ko raxas té du sobé ñett yi nga xamantani sobé la dañ ko raxas fu mu wala fu mu génne du waral sangu set moy masiyu wadiyu ak saw comme ñett yooyu mooy yi nga xam ne du waral sangu set waaye dañuy raxas bu génnee ci nit walla ci fa mu tàbbi comme jëlal règle yu waralul sangu set sobe la lu waral sangu set du du sobe te loolu moom mooy lan loolu moom mooy almaniyu soo ko jëlee doon comme règle rek da ngay noppalu yi nga xam ne du waral sangu set du sobe yi nga xam ne day waral sangu set mooy contraire naam. loolu day wane lislaam du xel subhaan lislaam du xel ndax amaana foo doon toog sax wax lii ñëppay jóg bàyyi la fa daa kii dafa dof lislaam du xel fekkee ci xel la rek danga naan mëniyu mooy li nga xam ne ci lañ war a gën a mën a sangu ka yële dañ war a gën a mën a moo gën a war a mën a nekk sobe ka yële parce que bu génnee ci yow da ngay sangu lu tax ngay sangu ba pare du sobe subhaanallah mu ne diina texte la moo tax ali mu ne diina bu nekkoon xel xufu raxas ci suuf awla min raxas ci kaw dakaana masxa mas euh, asfalal xuf awla min masxi ala ndax xufu ci suuf mooy tilim ci kaw du tilim ci suuf ngay dox waaw comme diine ay texte la moo tax ñi nga xam ne dañuy jiital xel ci texte yépp dañoo sànku wala ñu mujj ci ay ci ay contradiction wala ñu mujj ci ay contradiction naam xadis bu ci topp wa fi lafzin lahu laqad kuntu axukkuhu yaabisan bi zufri min thawbihi fi lafz ci beneen euh, riwaaya ci Aïcha mu ne maa ko daan xoos ak sama we comme fii dafa leeral ne yaa Aïcha xoos kook leneen lu dul weewam xadis bu njëkk da dama ko daan xoos mën na jël bant xoos ko mën na jël leneen xoos ko mais fii dafa leeral ni sama wee bii laa ko doon xoosee mu gën a wane ni du sobe lu tax du sobe benn yaa Aïcha ci weew la ko xoos te raxasu ko amul fenn fu ñu jëlee ni da koo raxas après dafa dem raxasu beneen bi mooy yenn salaat dafa gën dem julli ci dem julli ci yére boobu comme day gëna a dëgëral ni yu bu takké ci yëre wala ci ab bërëb dagan nañu ñu julli si waaye nit ki nag mën nako ko raxas ngir rek ngir warma mën nako ko raxas ngir li nga xamne mom moy warma worma comme yem fii insha dars bi ñëw wallahu alam sallallahu alaihi wasallam dars bi ñoo ñu tambali ci al aqidat tahawiyya amin iyaakum أبو فاطمة فيكيبي وفايل